après bu ñuy wax lutax mu quitter groupe ndey gay nga xamantene ne fa la nekkone les gazelles de Dakar di fecc ba nit ñi commencé la xam nga quitter fa lutax tax fecc da ngeen tam ku leen jangal ba ngeen ngeen dem nek sa di ko di di di di ko di ko diir ni ngeen mel ma jangal ah groupe am nga waxon nga nekk groupe am la nekkone di fa fecc mais jangaluma dañ fa dama fa nekkone mu gis ma ma bëgg li may def man en même temps bima ma nekk si groupe ndey gay ngi di répéter di sakku ji xam-xam mu gis ma limay def neex ko mu duggal ma ci groupe ma di fa fecc ba yàlla dogal tamit ma war a gunge yeneen xale ma dem ber sama daara. ah du Ndeye Gueye moo la jàngal fecc. déedéet Ndeye jàngalu ma fecc. waa Ndeye jàngalu ma fecc daf maa fekk ma bëgg fecc. bu ma ko mënul sax ma bëgg ko di ko ànd ak moom di ko gunge sama mag la sama xarit la waaw man ñi ma jàngal fecc mooy waa ñi ñaaxeen de Géejawaay biñ fa jógee ñun ñëpp dañu former beneen base mooy Africa Ndigal groupe ñun foofu lañu ñu mottalantee ndax defandoog ñu mën day tax xam-xam bari te foofu ay kàngaam ñoo fa nekk ci métier bi ñuy def moo tax ma bëgg artiste bu ci nekk bul fowee sa bopp fecckat yi bu ñu fo nañu respecté seen ay job ñu téye ko parce que métier la bu am valeur te day génne prix normal dala yor yor sa njaboot boo ko bëggee. ah ñu ne fecc mën ta yor borom. waaw de loolu la ñu yaakaar ñi koy wax feccuñu ñi ku la ko waxati ne ko kon doo fecckat. ñun fecc ñu yor yóbbu ñu foo xamante ne suñu président dëkk sax du fa dem mm. waaw. ci fecc mi fecc kese. barke maam Cheikh Fall.